mbokk yi alxalifa cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Souleymane asalaamaaleykum wa rahmatullah. alhamdulilah wa kafa wasalaatu wasalaam ala rasulillah sayyidina wa mawlana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. alhamdulilah wa kafa wasalaamun ala rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. lii sukkandiku ci waxi sallallahu alayhi wa sallam ne jaddidoo imaanakum bi qawli laa ilaha illa allah wa rasulullah xalifa bi ne ñu ngi sukkandiku ci waxu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ji mu wax ne beesal leen seen ngëm yàlla ci laa ilaha illa allah ñun ñëpp nañ wax laa ilaha illa allah sëriñ bi ne ñun ñëpp ñu wax laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illallah laa ilaha illallah. Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa gannaaw loolu ku ci nekk. sëriñ bi ne gannaaw loolu ku ci nekk. ka nga dendal jox ko loxo ne ko baal ma. ki nga dendal ci jumaa ji jox ko loxo ne ko baal ma xaq na ñëpp daj. na ñëpp balaan tàq. sëriñ bi ne na ñëpp joxe loxo kenn ku ne ne baal ma xaq sa morom. alhamdulilah. sëriñ bi ne ñu ngi wax alhamdulilah. beneen yoon. def nañ li ñu war. ñun daal. def nañ li ñu war. mooy nangu nañ ne ay jaam lañ. mooy ñun nangu nañ ne ay jaami yàlla lañ. ñu ngi beesal suñ gëm yàlla. ñu ngi beesal suñ gëm yàlla nag. ci ni ñu ko yonent sallallahu alayhi wa sallam santaane. ci ni ñu ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam santaane. ñun ñëpp wax nañ laa ilaaha illallah. ñun ñëpp wax nañ laa ilaaha illallah. na yàlla nangu ne géesal nañ yàlla. na yàlla nangu ne ñun ñëpp. beesal nañ suñ gëm yàlla moom. ñun ñëpp baluxante nañ xàq. ñun ñëpp tamit gannaaw gi baluxante nañ xàq. ñaar yooyu buñ ko defee. ñaar yooyu sëriñ bi ne buñ ko defee rek. wóor nañu ne péew yàlla bu ubbeeku na. wóor nañu ne ñun dëgg dëgg péeb yàlla ba xubeeku na lépp lu waaye ñaan yàlla yàlla jox la ko lépp lu fi waaye ñaan yàlla wala nga dagaan ko yàlla dana la ko jox tey lépp lu ci waaye ñaan lépp lu fi waaye ñaan lu duur mooy yàlla lu dóor mooy yàlla wala yàq ak bokk wala luy yàq mbokk yàlla na ko yàlla nangul yal na ko yàlla nangu yaara bi ba nga yëg ne yàlla nangu na ba nga yëg ne yow yàlla nangu na loolu kon ñu ngi sant yàlla bu baax sëriñ bi ne ñu ngi sant yàlla beneen yoon jotaay bii bu xamee jotaay yàlla la neex. yàlla la neex xam ngeen. ndax. ndax. am na ñu jiitu. am na ñu fi jiitu. yal na yàlla yërëm leen. yal na yàlla yërëm leen yaa rabbi. kon buñ ko fekkee tey ren. kon ñun tey buñ ko fekkee teew. ba mën a jox waxtu wi. ba mën a jox waxtu wi. naafila yëpp. naafila yëpp ñu def ko naafila yëpp ñu def ko. ci alquran. ci alquranul karim. loolu ku ko fekkee. loolu ku ko fekkee. alhamdulilah moo ci war a tegee dëgg dëgg alhamdulilah rek ci war a tege. ndax yàlla la neex rek mu def ko. ndax loolu xam nga ne du suñu njàmbaar yàlla la neex. ñu ngi sant yàlla ko yonentam ñu ngi sant yàlla di sant yonentu yàlla Muhammad di sant Cheikh Ahmad Tidiane di sant Seydina Cheikh di sant suñu maam Alhaji Abdoulaye Niass di sant suñu maam Alhaji Abdoulaye seen maam yi àndoon ak moom ak seen maam yëpp di sant Mawlana Cheikh Islam di sant Mawlana Cheikh nga xam ne sunna sii nga xam ne sunna sii moo ko sunnaal moo ko sunnaal ci mboolem am toppam ci mboolem am toppam képp ku ko man yaa ngi koy def képp ku ko man ci topp mi rek yaa ngi koy def sant di ko gërëm kon dëgg-dëgg ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaan ki nga xam ne mooy suñ buntu ci moom di ñaan nag ki nga xam ne mooy suñu buntu ci moom tund wii tund wi ak place bii. ak place bii. muy Maulana Cheikh Serigne Mbaye. muy Maulana Cheikh Serigne Mbaye. yàlla radiyallahu anhu. yàlla ñu ko yàlla fayal. yàlla ñu ko yàlla fayal yaa rabbi. ñu koy ndokkeel bu baax baax. ñu ngi ndokkeel bu baax. di ndokkeel njabootam gi nga xam ne ñoo jiitu di ndokkeel njabootam gi nga ne. ñoo jiitu. ñoo jiitu. di ndokkeel ki nga xam ne. di ndokkeel ki nga xam ne. moo fi doon suñ kilifa. moo fi doon suñ kilifa. yore woon baat bi. yore woon baat bi yëpp. di ñaan yàlla fay ko. di ñaan yàlla ci zaahir ak ci baatin. ci ak ci baatin. ndax lu tax. ndax lu tax. alquran ji ñuy naafila. alquran jii ñuy naafila tey. ci jamono Cheikh Serigne Mbaye. ci jamono Cheikh Serigne ñaar ñaara ko fi yore woon. ñaara ko fi yore woon. El Hadj Omar Sall. El Hadj Omar Sall. El Hadj Ousmane Thiam. El Hadj Ousmane ku leen ñetteel. mu ne moom yëgul ñaar ñooñu ku leen ñetteel. bi mu fi jógee. biñ fi jógee. El Hadj ñëw. Cheikh Barham ñëw fi. Mor Thiam mi fii la jàngee Mouhamad Thiam mii ngeen xam fi la jàngee. ci Nuuru Sabaa. ci Nuuru Sabaa. Asbaay mi mi doomam. Asbaay mi doomi El Hadji Barham fii la jàngee. fii la jàngee. ci Nuuru Sabaa. ci Nuuru Sabaa. Mor Abdoulaye mi imaam bi tey. imaam Mouhamad Abdoulaye mi. fii la jàngee. fii la jàngee. ci Nuuru Sabaa. ci Nuuru Sabaa. Mouhamed bi tey. Mouhamed bi tey. fii la jàngee. fii la jàngee. ci Nuuru Sabaa. ci Nuuru Sabaa. Mansour Mansour Mbow. Mouhamadou Mansour Mbow. fii la jàngee. fii la jàngee. ci Nuuru Sabaa. ci Nuuru Sabaa. ñi ma tudd ñëpp. ñi mu tudd ñëpp. ku ci ne. ku ci ne. taxawaay bii. taxawaay bii. Mouhamed Thiam def. Mouhamed Thiam def. man nga loolu. man nga loolu. waaye moom la ko yàlla sédd. waaye moom la ko yàlla sédd. ñu ngi ko ci ñaanal yàlla. ñu ngi koy ñaanal yàlla ci loolu. alquran ji rafet na. alquran ji dëgg dëgg rafet na. te. weeru koor wu ne. weeru koor wu ne. am na yaakaar. am na yaakaar. waaye weer wii. waaye weer wii. yëg naa ne. sëriñ bi ne yëg na ne. ci la suñu yaakaar xëppee. ci la suñu yaakaar xëppee nag. ndax ñu ngi commencé bisab alxames. ndax ñu ngi commencé bisab alxames. muy guddi hajjuma. muy guddi hajjuma. war a jeex tey. war a jeex tey. di guddi altine. di guddi altine. loolu. loolu. secret bu rëy la. xam ngeen ne secret bu rëy la. ku ne xam na ne. ku ne xam na ne. am na yaakaar. am na yaakaar. yaakaar ji ñu ci yaakaar. yaakaar ji ci yaakaar yëpp. yal ko yàlla dëggal. na ko yàlla dëggal yaa rabbi. ci zaahir ci ci kon nag li ma doon lim léegi mu ne ñim doon lim léegi ki leen taxawe ki leen taxawee ba def ci ñoom alquran ba def ci ñoom alquran def ci ñoom njub def ci ku ci ne ba nga pare ku ci ne bi nga paree ñibbi woo sa dëkk ñibbi woo sa dëkk de da toog dëkk ak moom da ngaa toog moom mu jox la kër mu jox la kër takkal la jabar takkal la jabar jox la daara jox la daara di la ñaanal yàlla di la ñaanal ba nga mën a yore sa bopp ba nga mën a yore tey sa bopp doo taxawee doo taxawu kenn doo taxawu kenn doo taxawaalu kenn doo taxawaalu kenn ngir loo lekk ngir loo lekk doo taxawaalu kenn doo taxawaalu kenn ngir loo fajoo taxawaalu kenn doo taxawaalu kenn ngir loo xoddoo ngir loo xoddoo barke boobu barke boobu yal na ko fi yàlla saxal ko fi yàlla saxal yaa rabbi yal na ko fi yàlla saxal ko fi yàlla saxal ku liggéey ku ñu wax ko sa gannaaw ñu wax ko sa gannaaw ku liggéey ñu ne la yaa jaajëf ñu ne la jaajëf ku liggéey ku ñu gërëm la ñu gërëm la te lii mu def te lii mu def ñun ñëpp la ko defal ñun ñëpp la ko defal doom yaa ngi nii doom yaa ngi nii sëriñ Aliou moo ci mag sëriñ Aliou Cheikh sëriñ Mbaye ci mag ci gone yi ci gone yi Mouhamadou Abdoulaye ngi nii Mouhamadou Abdoulaye sëriñ Aliou ngi nii Seydi Aliou Barham a ngi fi ñëpp a ngi ku ci nekk tey ku ci nekk mën nga taxawee lépp mën nga taxawee lépp kon kon dafay bàyyi ay njiiti njiit dafay bàyyi ay njiiti njiit yoo xam ne yoo xam ne ku ku dem rek ku dem rek am na ku la remplacé am na ku la remplacé loolu loolu ku xam ni mu demee. ku xam ni mu demee. xam ne doxul lu tuuti. xam ne doxul lu tuuti. kon nag. kon nag. maa ngi dénkaane. sëriñ bi na mu ngi dénkaane. nañ fonk pay bi. nañ fonk pay bi. nañu jaral lu ne. nañu jaral lu ne. nañ ko fonk. nañ ko fonk. nañu jaral lu ne. nañu jaral lu ne. nañu jaral lu ne. nañu jaral lu ne. saahir. saahir ak baatin na ñëpp xam loolu. na ñëpp xam loolu. te ñëpp nañ ko dégg. te ñëpp nañ ko dégg. te ñëpp nañ ko jëfee. te ñëpp nañ ko jëfee. te ñëpp na nekk na nekk seen xol yi. te ñëpp na nekk seen xol yi. bu leen ko caaxaanee. bu leen ko caaxaanee. pay bii. pay bii. bu leen ko caaxaanee. buñ ko caaxaanee. pay pay bii. pay bii buñ ko caaxaanee bu leen caaxaanee alxuraan. bu leen caaxaanee alxuraan. bu leen caaxaanee waxtu yu juróom. bu leen caaxaanee waxtu yu juróom. bu leen caaxaanee tariqa bi. bu leen caaxaanee tariqa bi. ku xaju ci pay bi. bu leen caaxaanee ku xaju ci pay bi. bu leen caaxaanee buñ ko xamee. buñ ko xamee buñ ko xamul. te moo fal. moo ñu te ku ci baxut. te ku ci baxut. ca la mel na nga war a mel. mel na a mel kenn mënu laa tedd. fii ci àddina fii ñëpp nañ xam loolu. ñëpp sëriñ bi ne xam loolu. Euh, tey nag. sëriñ bi ne tey nag. dama dem ba yëg ne. dafa dem ba yëg ne. ki kóllëre. ki kóllëre. jaral mu weddi yonent bi. jaral mu weddi yonent bi. ba dem ca safara. ba dem ca safara. kon julit. war naa am kóllëre. war naa am kóllëre. ba topp yonent bi ba topp yonent yàlla Muhammad ba dem aljana ba dem aljana ndax lan. ndax lan. jàng nañ ci alquran. ñun ñëpp jàng nañ ci alquran. xeefaru Quraysh yi. xeefaru Quraysh yi. ba yàlla yónnee seen mbokk. ba yàlla yónnee seen mbokk. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñu bokk moom ndey. ñu bokk ak moom ndey. bokk moom baay. bokk ak moom baay. di ay nijaayam. di ay nijaayam di lépp. di lépp ñu xam ne nit ku baax la. ñu xam ne la. waaye. waaye lu tax ñu weddi ko. lu tax ñu weddi ko. mooy lan. mooy lan. inna wajadna. inna wajadna. abaana. abaana. te xam nañ ne sax baaxul. te xam nañ ne sax baaxul. waaye. waaye. wajadna abaago noonu. wajadna abaago googu. abaana boobu. abaana googu. moo tax. moo tax ñu dem ci safara. ñu dem ci safara ñoom waay waay kon waaye dëgg dëgg ki gëm yàlla ki gëm yàlla gëm yonent gëm yonent bi wajat naa abaana wajat naa abaana rek ba dem aljana ba dem aljana loolu ku ne ku ne mën na ko ku ne mën ko loolu kon nag kon nag buñ caaxaanee liñ ne buñ caaxaanee liñ xam ak liñ nekk tey nag tey nag ku ko yëg ak koo yëgul ku ko yëg ak ku ko yëgul lislaam lislaam ñu ngi ko taal boor bu ne ñu ngi ko taal bor bu ne te taal bi te taal bi bu doon noon yi sax bu doon noon yi sax muy jàmm muy jàmm waaye ñu lislaam jur waaye ñu lislaam jur meññi leen meññi leen ñooñu ñooñu ñoo préparé ñoo préparé pour tas lislaam pour tas lislaam kon maa leen di wax ne sëriñ bi ne mu ngi ñuy wax ne dellu leen ci nañ dellu ci wajat naa aba ci wajat naa aba ana ndax lan ndax lan loolu moo leen di yóbbu aljana loolu moo ñu yóbbu aljana yal nañu yàlla defal loolu. yal nañu yàlla defal loolu yaa rabbi. ci zaahir ci zaahir ak ci baatin ak ci baatin. ñu ngi ñaanal. sëriñ bi na ñu ngi ñaanal. njaboot gi njaboot gi yëpp. di ñaanal. di ñaanal suñu doom. suñu doom Mouhamad Thiam. Mouhamad caam ak ñi nga xam ne. ak ñi nga xam ñoo ko doon taxaw ñoo runge du mën a ñàkk. runge moom xam ngeen du mën a ñàkk. kuy tere alquran yaay runge. kuy tere alquran sëriñ bi ne yaay runge. kuy tere alquran yaay gàkk. kuy tere alquran yaay gàkk. ku mokkalu alquran du gàkk. ku mokkalu doo tëri bay gàkk. ndax doo tari. ndax doo tari yow. kon kii tari. kon kii tari. mooy runge. mooy runge. ndax alquran. ndax alquran. dafa bëri ay xur. dafa bëri ay xur. ak i montagne. ak i montagne. ak i laññi. lépp ci biir alquran lépp a ci biir alquran léeg-léeg nga egg foo xam ne léeg-léeg nga xàgg foo xam ne. da nga jaawale ne da nga jaawale ne. ndax yoon wi la ndax yoon wi la wala yoon wi wala la. loolu moo tax. loolu moo tax. ci gannaaw. ci gannaaw. moom mi jiite. moom mii jiite ñuy teg. ñuy ñoo xam ne. ñoo xam ne dañoo watta alxuraan ni moom dañoo watta alxuraan moom. bu bu rungee. bu rungee rek ñu ne ko nii la. ñu ne nii la loolu. loolu du andi ayib. du andi ayib mu du andi ayib. du andi benn ndax noonu la war a demee. ndax noonu la war a kon nag. kon nag yal na yàlla dimbale. yal na yàlla dimbale la alxuraan ji rafet na. alxuraan ji rafet na alxuraan ji dëgg dëgg rafet na. alaaji Barham moo ko tegoon sa loxo. Cheikh Barham seen mag moo ko tegoon sa loxo. wéyal nañ loolu. wéyal nañ loolu. te du dañ. te du dañ ba pencam yàlla ba pencam yàlla. yàlla la ci yàlla jàppale yéen na la ci yàlla jàppale yaa ñi ko mën a fi de ñi ko mën a fi de waaye waaye dégg mu ne ñun ñëpp yàgg nañoo dégg mu ne ku ci ne ku ci ne la ko yàlla sédd la ko yàlla sédd nañ ko ko bayee nañ ko ko bayee te jàppale ko te jàppale ko ca loolu ñun ñëpp dégg nañ loolu ñun ñëpp dégg nañ ko kon na man ci loolu laa ne sëriñ bi ne moom mii ci loolu la ne néew ci leneen newut ci leneen aw ma benn soxla tey amul tey benn soxla lu may lu may sas wii mu ma bayee sas wii mu ko bayee maak samay rak mook ay rakam ak mboolem taalibi ak mboolem taalibi ak mboolem soppi ak mboolem soppi ñu xéwénal gënal ko. lu mu lu mu lu mu sumboon. lu mu sumboon ñu heggale ko ba def lu mu sumbutoon. ba def loolu dong mooy suñu pas-pas. loolu dong mooy leneen nag. leneen. néewuñ ci leneen. man Mohamadul Mahi. moom Mohamadul Mahi. tëlumaa xuloo. xeex. talta xeex dara. ndax liñ ma liñ doy na ma sëkk. doy na ko sëkk walis leneen. walis leneen loolu dong ci laa ne. loolu dong ci la ne. sukkandiku nag. mu ngi sukkandiku nag ci barkeeb. ci barkeeb Cheikh Serigne Mbaye di sukkandiku itam. ci barke. ci barke mi nga xam ne. mi nga xam ne ñun ñëpp nangu nañ ne. ñun ñëpp nangu nañ ne nañu. te defulu dara boppam. ndax li bay gannaawam. ndax ndono. kuñ ko mayoon sax doo ko jël ko mayoon sax doo ko jël mooy mbaar mi ci suñu gannaaw ak la xam ci kuy mbokkam kuy mbokk kuy soppe lim am ak liñ ko jox def na ko ci pay bi mu def ko ci pay bi ba nii kon nag du yàqu suñu loxo du yàqu suñu loxo lépp lañ ciy teg nag lépp lañ ciy teg nag lu bakkan laaj rek lu bakkan laaj rek ngir fekk lii ngir fekk def danañ ko def dara du ko yàq dara tayit tayit doy nañu nag. doy nañu nag ci moom. ci moom lim ñaan lim ñaan. ñaan googu de man ñaan googu de moom. xaw ma ku xamut. mu ne xamut ku xamut nit ku liggéey. nit ku liggéey te bëgg ñu xaar gannaawam. te bëgg xaar gannaawam. te bëgg yàlla xaar gannaawam. te bëgg yàlla xaar gannaawam. mu ñaan yàlla ñaan yàlla. ku xamul loolu. ku xamul loolu. defal lu la lu la neex. wax na ne. wax na ne. te ñëpp dégg nañ ko. te ñëpp dégg nañ ko. bii. pay ku ko nar a yàq. ko nar yàq. yal na mel ni do euh, nen. yal na mel ni nen. wu dal ci doj. wu dal ci doj. gannaaw gi mu ne. gannaaw gi mu bu ca dalee. bu ca dalee. foog mu toj. foog mu toj dana dana ko takkal. ko takkal mu ne yal na mel ni. mu ne yal na ni. cunkóor cunkóor bu tiim safara. bu tiim safara nam koy xarooti ko. nam koy xarooti ko naan naan ko. naan ko te du xañ kenn. du kenn yal na mel noonu. na mel noonu. dem na ba ñu fi nag. dem na nag moom Cheikh Barham radiyallahu anhu bàyyi ñu fi de li wax nag. li mu wax nag. mu ci suñ kanam. mu ngi ci suñ kanam de. bal bu tàkk la. bal bu tàkk la mu ci kaw. mu ngi ci kaw ku ci def lu duwul noonu. ku def lu duwul noonu. ak koo mën a doon koo mën a doon. bal bi daan sa bal bi daan sa kaw. man de du ma ci dugg. mu ne moom du dugg ci loolu de. ndax ndax. jumaa taxaw ndax jumaa taxaw tribune taxaw tribune taxaw kër bay mbay taxaw kër bay mbay taxaw hôpital taxaw hôpital taxaw marché taxaw marché taxaw rajo bi ñëpp a koy dégg bi ñëpp di ko dégg taxaw lépp taxaw lépp taxaw ba ci université ba ci université ñoŋal kër gi ñoŋal kër gi ñoŋal lañ moom ñoŋal lañ moom toppatoo suñuy tool toppatoo suñuy tool def ko ci ay këyit defar ci ay këyit lépp kër gi lépp kër gi dañ bañ dara yàqu bañ dara yàqu mu ñaan yàlla ne mu ñaan yàlla sama gannaaw sama gannaaw ya ku ko bëgg a yàq ku ko bëgg a yàq yàlla nga mel nangam yàlla nga mel nangam ndax sañut loolu ndax sañut loolu sañ na ko sañ na ko ñun ñi fi toog ñëpp ñun ñi fi toog ñëpp ku ci ne li nga xam bëgg ko yàq ku ci ne li nga xam xam nga ne bëgg ko yàq kenn bëgg ko kenn bëgg ko kon nag kon nag kenn du ko yàq. kenn du ko yàq. maa ngi xeesal loolu bu baax a baax. sëriñ bi ne mu ngi xeesal wax jooju. bu baax. ñëpp la jaboote nag. ñëpp nag la Cheikh Baraam jaboote. waaye maa ngi leen di wax Cheikh Sëriñ Mbaye. Cheikh Sëriñ Mbaye ñëpp la jaboote ñëpp la jaboote waaye maa ngi leen di wax ne waaye mu ngi wax ne ku ci góorgóorlu ku ci góorgóorlu aw fa nga war a xaw aw fi nga war a xaw dooñee kenn dooñee kenn doo taxawaalu kenn sa mbir du taxaw te lépp dana xéwél te da nga xam lépp te da nga dimbale ku la neex loolu moom lu xam la moom. loolu moom laa shakka lu am la. kon nag kon nag. nañ sukk ci kanamam. nañ sukk ci kanamam. liggéeyal ko liggéeyal ko. xoromalante. xoromalante. bëggante. bëggante dimbalante. dimbalante li ci des nag. la ca des nag du dara lu may bakkan. sëriñ bi dara dara lu may bakkan. ku ne xam nga. ku ne xam nga sa bopp. sa bopp ku ne xam nga yaay kan. ku ne xam nga yaay kan. aaye bi toujours dama koy wax. sëriñ bi ne laaye ji toujours daf koy wax. parce que dox maa dugg te dama ko gëm. parce que dëgg dëgg laaye ji ko dugg la te da ko gëm. yaa ayyuha naasu. yaa ayyuha naasu. innaa wa unsa. wa ñëpp a ci dugg. ñëpp ku xees ki. ku xees ki ñuul ki. ku ñuul ki ku nangam. ku ñëpp a ci dugg nañ min zakarin wa unsa min zakarin wa unsa wa jaalnaakum suuban wa qabaila li taarafu moo ñu fi dajale inna akramakum inna akramakum xindallaahi ñi jàng arab ñi jàng xam ne ne xegguñ ca xam ngeen ne xàggaguñu foofu moom inda foofu suñ fa xasee foofu nag buñ fa xasee xàgg lu waay xam jël lu waay xam jël bu la neexee loolu yàq loolu nga xam loolu nga xam bu la naqadee loolu nga xam bu la naqadee loolu nga xam waaye gannaaw xegguñ fu nag waaye gannaaw nañ xormalante nañ nangu nañ ci làmmiñu Cheikh Serigne Mbaye mu ne nangu nañ ci làmmiñu Cheikh Serigne Mbaye radiyallahu anhu majlis bu mu defoon ca Nigeria dëkk bu ñuy wax Saareya majlis bu mu defoon ca Nigeria ca Saareya wala dëkk bu ñuy wax Kontagora wala boog dëkk bu ñuy wax Kontagora mu ne mu ne nit nit du am fadlan min Allah du am fadlan min Allah lu mooy lu mooy koo daje rek koo daje rek jàppal ne moo la gën man kii moom a gën mu firi ko mu yaatu. mu firi ko nag mu dal di yaa. mu ne mu ne. ndaw li. ndaw li mën na wax ne mag mi ma gën. mën na wax ne man ndaw li mag mii moo ma gën. mag mi mën naa wax ne ndaw lee ma gën. mag tamit mën naa wax ne man ndaw lee ma gën. ndax lan ndax lan. ndaw li mu ne. ndaw li mu ne. mag mii dey mag mii day. fi jaar ci topp yàlla. fi jaar ci topp yàlla. ci sujoot. ci sujoot ak i naafila. ak i naafila ak i ay farataam. ak i farataam xaj makka. xaj makka sadaxe. sadaxe jokko jokko bokk. def lu baax def lu baax lépp def na ko. lépp def na ko te man xëgguma ci. te man nag ndaw laa xàggaguma foofu. xaw ma dinaa ci xàggam déet kon mag mi moo ma gën. kon mag mi dëgg dëgg moo ma gën. mag mi ne. mag mi ne ah man ndaw lee ma gën. ndaw lee ma gën. ndax. ndax fi ma jaar ci càgganteef. fi ma jaar ci càgganteef. yàlla suturaal ma. yàlla suturaal ma ndaw li jaaragu fa. ndaw li jaaragu fa kon ndaw lee ma gën. kon ndaw lee ku nekk ku nekk bu fasee sa xol ci loolu. bu fasee sa xol ci loolu. ku koo daje jàpp ne moo la gën. koo daje yow jàpp gën. ñëpp am jàmm ñëpp am jàmm. te jàmm. te jàmm mooy lislaam. mooy lislaam. lislaam. lislaam lu andiwut jàmm rek. lu andiwut jàmm rek lislaam soxlu ko te duwu ko. lislaam bëggut soxlawu ko te ko. kon nag kon nag yal yàlla may jàmm yal nañu yàlla may jàmm yaa yàlla bu ñu bakkan këf yal na bu ñu bakkan këf yaa rabbi yàlla bu ñu bakkan këf yal na bu ñu bakkan këf yaa rabbi damay wax toujours ne sëriñ bi ne day wax toujours ne ñaari yëf ñaari yëf ku ko yàlla natoo ku ko yàlla natoo am nga problème am nga problème am nga jàngoro joo xam ne jàngoro joo ba péncam yàlla du wér ba péncam yàlla loolu du wér bëgg daraja lool bëgg daraja lool bëgg xalal lool bëgg xalal lool ànd xel ànd ak xel xam na ngay doxalee xam na ngay doxalee mën ta xam mën ta xam mën naa am man taa xam mukk ku jaar sa kanam rek ku jaar sa kanam rek gannaaw bëgg nga daraja gannaaw bëgg nga daraja boo ko mënee éliminer soo ko mënee éliminer ci saa mu dem yoonam ci saa mu dem ngir sa daraja feeñ ngir rek sa daraja feeñ amul benn njëriñ amul benn njëriñ ñu ngi lay xaar ñu ngi lay xaar ñu ngi lay xaar ca ñu mu jëg ay bi mu wax léegi mu jëg laaya ji ñuy wax léegi rek indallaahi atqaakum dong fa la lay xaar ko loo mën a doon rek. loo a doon ñu ngi lay xaar foofa. ñu ngi lay xaar foofa. àddina bii nag. àddina bii nag. àddina bii. ni mel yàllaa ko bindee. ni mel ñu xam ñun ñëpp. yàllaa ko ko bindee. jëmm yi. jëmm dañoo gën a rëy xëppante. dañoo xëppante. wërsëg yi. wërsëg yi xëppante. xëppante xam-xam bi. xam-xam bi xëppante. xëppante daraja. daraja xëppante. yàllaa ko bëggee noonu. yàllaa ko bëggee noonu te moo ko bëgg ci jaamam. te moo ko bëgg ci jaamam noonu la ko yàlla doxalee. noonu ko yàlla doxalee. tey looloo ko soob. te itam xam ngeen ne moom yàlla looloo ko soob. kon nag. kon nag bu ñu delloo ci njàngaleem baay buñ delloo ci njàngaleem baay radiyallaahu anhu te yàgg naa ko wax ci ay jotaay tey yàgg na koo wax moom ci ay jotaay ñaari jaam dañu ñëw ñaari jaam yi yàlla dañu ñëw ci ci ci benn saalihu ci benn saalihu di nit baax wala benn borom xam-xam wala boob benn borom xam-xam ne ko dañoo bëgg nga dénk ñu nekkoo ko ñun dañoo bëgg nga dénk ñu kii rafet lool kii nag dafa rafet lool kii ñaaw lool mu ne leen yomb lool. mu ne leen dénkaane boobu ngeen bëgg yomb na lool. ji nga yow mi ni nga rafetee. gis nga yow mu rafet mii ak ni nga rafetee. dara baaxut ci yow lu may jëf-jëf rek. dara baaxut ci yow lu may jëf-jëf ju rafet rek. waroo def dara lu ñaaw. waroo def dara lu ñaaw. mu yàq sa taar bii mu yàq sa taar bii. ji nga ni nga ñaawee mu ne ko yow gis nga ni nga ñaawee lu rafet rek baax ci lu rafet rek baax ci yow waroo def dara lu ñaaw mu yokk sa ñaawaay mu yokk sa ñaawaay mbooloo mi fi teew yëpp nag mbooloo mi fi teew yëpp nag ku ñaaw ko rafet ku fi ne yow mi rafet yow maa ngi lay wax ne ci waxi baay ci yoonu baay bu def lu ñaaw mu yàq sa taar bi mu yàq sa taar bi yow mi ñaaw yow mi ñaaw ci waxi baay ci waxi baay maa ngi lay wax ne mu ngi lay wax ne bu def lu ñaaw bu def lu mu yokk sa ñaawaay ku am xel waru koo nangu. ku am xel dëgg dëgg waroo nangu loolu. kon nag kon nag. maa ngi ñaanal dëkk bi. sëriñ bi ne mu ngi ñaanal dëkk bi yëpp. maa ngi ñaanal tund wi. mu ngi ñaanal tund wi yëpp. maa ngi ñaanal topp mi mu ngi ñaanal topp mi. maa ngi ñaanal jullit ñi mu ngi ñaanal mboolem jullit nag. di leen ndokkeel nag. du leen ndokkeel nag. ci weeru koor wi. ci weeru koor wi. ndax lan. ndax lan. xuute daan na xam de. xuute daan na xam de. waaye ren. benn xamul benn wuute. ah benn wuute xamul. ñu ngi ñaan nag. ñu ngi ñaan nag ca korite ga. ni ñuy yàlla dimbalee. bañ bokk xoor. bañ nañ bokk xoor yi. yàlla bu ci saytaane xam yoon. yàlla bu ci saytaane am kenn. ba mu andi wuute. ba mu andi wuute. baaxul. yàlla musal. suñu réew. mii. suñu yi. nañ ko téye. nañ ko téye. ko joxee. ñoo ko yore. bu leen ko joxut ñoo ko yore ñoo ko yore ndax lan ndax lan demal ndakaaru gii demal ndakaaru gii demal Sandaga demal Sandaga place boo fa gis place boo fa mu fees dell mu fees dell ka ko xilif ka ko xilif nit ak daara la nit ak daara la doomi daara la demal ci tailleur yi koo fa gis koo fa gis mu nekk mu nekk patron mu nekk patron nit ak daara la nit ak daara la dama ci mécanicien dama ci mécanicien koo fa gis koo liggéey nit ak daara la nit ndax lan. ndax lan yar bi ñu leen yar. yar bi ñu leen yar. dafa ànd ak xam-xam. dafa ànd ak xam ak ak jub. ak jub ak ragal yàlla. ak ragal yàlla ak développement. ak développement. nit ak daara rek moo am loolu. nit ak rek moo xam loolu. ba baatab ABC. baatab ABC. ku ci am bak ku ci am bac. rus ngaa def yenn yi. rus ngaa def yenn yi. ndax ndax dañ lay wan ne yow doo pour ñii dañ lay wan yow pour loolu. kon kon réew mi ñu ko téye. réew mi ñu ko téye. mooy. mooy niti daara yi niti daara yi rek. kon nag kon nag nañ téye li ñu war a téye. nañ ñu war a téye. buñ leen fonkee. buñ leen yàlla fonk na leen. yàlla fonk na leen buñ leen fonkut. buñ leen fonkut yàlla fonk na leen. ñu ngi jëm nag. sëriñ bi ne ñu ngi jëm nag. te maa ngi ñaan. te mu ñaan. képp koo xam ne boo waxee ñu déglu la. képp koo xam ne. boo waxee ñu déglu la. yëkkatil sa kaddu. yëkkatil sa kaddu. te wax lu baax. te wax lu baax. déglu lu baax. déglu lu baax. bu ci gaaral kenn. bu ci gaaral kenn. bu ci lor kenn. ci lor kenn. te bu ci fay bor. te bu ci fay bor wax ko ngir yàlla. waxal rek li ngay wax ngir yàlla. wax ko ngir yàlla. wax ko ngir yàlla. bu ci leble. bu ci leble bu ci fay bor bu ci fay bor bu ci gaaral kenn bu gaaral kenn. wax ji wax ji bu ci leble bu ci leble bu ci fay bor bu ci gaaral kenn wax ko ngir yàlla wax ko ngir yàlla yow bu la yàlla fayee bu la yàlla fayee soo gaaralee soo gaaralee da nga tooñ da nga tooñ boo ci fayee bor boo ci fayee bor lebal ko yàlla lebal ko yàlla yàlla ko fay yàlla da ko fay booy leble. booy leble lebal yàlla. lebal yàlla yàlla dàq fay. yàlla dàq fay nañ xam loolu bu baax. dëgg dëgg nañ xam loolu bu baax. amuñ lu mooy Sénégal. amuñ lu mooy Sénégal. amuñ lu mooy Sénégal. amuñ lu mooy Sénégal. amuñ lu mooy Sénégal. amuñ lu mooy Sénégal. nañ fi ñaan jàmm. nañ fi ñaan jàmm. jàmm ji fi ne. jàmm ji fi ne may ñu lim ñu may. ba ñu may. nañ ko téye nañ ko téye ak fukki suñ téeméeri loxo. suñ téeméeri loxo te bañ kenn yàqu. te bañ kenn yàqu ko. li fi ne. li fi ne. kenn dara. wàññiwul kenn dara. wàññiwul kenn dara wàññiwul kenn dara. ku ci ak cëriñ naqadi. ku ci ak cëriñ naqadi. ku ci ak cëriñ naqadi. ci ak cëriñ naqadi. yaa ngi xamee taalibe yaa ngi xamee taalibe ndax lu tax ndax lu tax caay caay ga nga ne caay ga nga ne ci xoo koo mu nangul la mu nangul la ko topp la ca yaay sëriñam yaay sëriñam yaay sëriñam yaay sëriñam ji nga jotaay bii gis ngeen jotaay bii ku ci xooloon kenn rek su xooloon kenn rek ne ko waaye nañ dem ne ko ah waaw nañ dem mu nangul la mu nangul la nga jóg mu topp la nga jóg mu topp ba ba ngeen tàggoo ba ba ngeen tàggoo mooy mooy sa sëriñ yow mooy sa sëriñ mhm. sëriñ bu jub ak bu jubati rek mooy te bu jub ak bu jubul rek bu jubati rek bu jubati rek waaye waaye képp ku ne la nangam waaye képp ku ne la nangam wax la wax la nga nangu ko nga mu jëf mu jëf nga topp ko nga topp ko ba ba nga koy tàggoo moom mooy sëriñ mooy sa sëriñ mhm. kon nag kon nag li fi mag ñi nekk. li fi mag ñi ne nekkee woon. nekkee lii rek la lii rek la newuñ ci leneen. newuñ ci leneen dañ daan bay bay bëgg a dee. dañ daan bay ñoom bay bëgg a dee. ka jóg nag. ka jóg nag bëgg dundee leneen. bëgg dundee leneen. kooku moom la concerné. kooku moom moom la concerné. waaye mag ñi ñoom. waaye mag ñi ñoom liñ dund. liñ dund ba tabax liñ tabax. tabax liñ tabax. dara mënu ko yàq. dara mënu ko yàq. amul benn nit ak daara. amul benn nit ak daara. bu mënta samp kër. bu mënta samp kër ah, ah. ñëpp mën a samp kër. ñëpp mën a samp kër. bi ciment xewut. bi ciment xewut. nañ daan def. nañ daan def. dem Dooro. dem Dooro. dem Gorixet. gori xet xet amul taalibe bu xamul xet amul bu bu xamul gaxet amul taalibe bu xamul laat amul taalibe bu xamul laat amul a a boo xam ne mën xet lépp mën nañ ko ba samp ci seen seen i nguru néeg seen néeg di ci dëkk ak seen jabar bañ xamul lal ñu jël ci gattax ba si gi ñu gor ay bant def ko tóor bañ demee bëgg lu gën a rafet bañ demee a rafet ñu di ko ñu peinture euh, fulli ko. ñu fulli ko def ci bëlo mu rafet. def ci bëlo mu rafet. ñu ñu euh, samp néeg yu baax. ñu samp néeg yu baax. jël pajaas. jël pajaas. saako ñëw ko. saako ñëw def ko pajaas. def ko pajaas def ci ñax. sol ci ñax mi def ko mat la. def ko mat jël darab lal ci. jël darab lal ci mu neex ba dee. mu neex ba dee. ci lañ neexoon ci lañ kon ñun yàgg nañoo yore suñu bopp kon dëgg dëgg yàgg nañoo yore suñu bopp. bu ñu waree lekk. bu ñu waree lekk. ñu indi konko. ñu indi konko. indi konko. bu ñu waree xeetu. bu ñu waree xeetu li ñuy wax deene. ñuy wax deene. ñu andi ko. ñu andi bu ñu waree gajji. bu ñu waree gajji ñu andi daaba. andi daaba andi semmiñ. andi semmiñ andi lépp. andi lépp luñ am. luñ mos a am ñoo ko wutal suñu bopp. ñoo ko wutal suñu bopp ba ba ni machine yi ñëw tey. ba ni machine yi ñëw tey. tey tey machine bu ñu daan liggéey ci tubaab bi machine bu ñu daan liggéey ci tubaab bi suñ suñ suñ suñ doomi réew mi maa ngi koy liggéey suñ doomi ngeen ne ñu ngi koy liggéey waaw kon ñun lañ ñàkk waa dëgg dëgg ana lañ lañ ñàkk nag ñun am na ñoo xam ne tey. am na xam ne tey. fetal bu ñu ko liggéeyoon. buñ ko liggéeyoon mënu koo xàmmee bu tubaab bi. mënoo koo xàmmee bu tubaab bi. waaye suñuy ñàkk bopp. waaye suñuy ñàkk bopp xegg na ci tey. xegg na ci tey. fii. fii ci tund wii. ci tund wii ku ñu fekkoon. ku ñu fekkoon ngay liggéey fetal. ngay liggéey fetal ñu dem kalaame la. ñu dem kalaame la ñu jàpp la. ñu jàpp la tëj la alamaan la. alamaan la te buñ bëggee fetal. te buñ bëggee fetal jëndee ko ci beneen réew. xel nangu na ko. xel nangu ko. dëgg dëgg xel nangu loolu mboolem kuñ fi jàngal. mboolem ñu fi jàngal. daaw matul ñaari at ci gannaaw. daaw ñaari at ci fii ci euh, camp bi dend ak sama kër. fii ci insowa bi dend ak caawaando caawnu laay. lu mat fukk dañoo ñëw ci man. ñu mat fukki nit dañoo ñëw ci moom. ñu libéré leen. ñu libere leen. pour ñu ñaanal leen. pour ñu ñaanal leen. ma ne ah xanaa mën ngeen a fetal de. mu ne leen ah xanaa mën ngeen a fetal de. ñu ne lool rek man ñu ne kay loolu rek lañ man ñun. xanaa man ngeen a yongaan ni rey ko de xanaa man ngeen a yongaan ni rey ko ñu loolu ci lañ gën a gaaw ñu ne ko a gaaw nag ñun lu ma leen laaj ñu ne mën ko lu leen laaj rek ñu ne ko mën nañ ko ma ne waaw mu ne leen waaw ku ci yéen ñi ku ci mën a liggéey puso yéen ñii nag ak li ngeen wax yépp ku ci mën a liggéey puso wala lañ seet bu ñu wala lañ seet bu ñu watoo ñu ne kenn ñu ne kenn nag ah yéen nag seen mbir daal mu ne seen mbir daal mooy lu rey nit rek mooy lu rey nit rek ngay seet yàlla ni mu sonne ci nit ngay seet ni yàlla sonne ci nit ah góor ak jigéen góor ak jigéen takk takk sëy jotee jotee ëmb xam juróom-ñeenti weer juróom doom doom doom jooju di nàmpal ñaari xat ñu ne dem ba ba di ko defal ay ngeganaay dem mu mën a toog a ba ci mu mën a yàngaar ba ci nga di ko teete muy dox ñu jël kuut di ko dëbb ci tànk bi ndax mu dëgër pour mën a dem nga xëy rek ray loolu jàmm la ndax loolu seet suñ bopp li fi xew kenn mënu koo wax de. li fi xew sëriñ bi ne dëgg-dëgg kenn mënu koo wax. te lu ñu lor ñoo lor suñu bopp. te lu ñu lor rek buñ laaji kenn ñun ñoo lor suñu bopp. démb maa ngi seetaan benn benn benn benn débat. sëriñ bi ne dafa seetaan benn débat démb. dafa mel ni li muy dund moom lay wax. mu mel ni li muy dund loolu la débat bi di wax. te yàlla xam na ne. te yàlla xam na ne. mbooleem xeeti tubaab yi. mbooleem xeeti tubaab yi. tubaab yi français moo ci gën a bon. tubaab yi français a bon. moo ci gën a xañaan moo ci gën a xañaan tubaab yi àngale tubaab yi àngale di nga cosaan yi ñu xamoon di nga cosaan yi ñu xamoon boo duggee gàmb gii boo duggee gàmb gii fekk fa cosaan ba fekk tubaab bi angale tubaab dañuy ñëw jël sa alal dañuy ñëw jël sa alal mais dañ lay bàyyi sa culture dañ lay bàyyi sa culture sa aada sa aada amuñ ci soxla amuñ soxla tubaab bi français tubaab bi français nag dafay ñëw dafay ñëw naan sa yur gi naan sa yur gi yekk ko yekk ko dugal ci yow loo xam ne dugal ci yow loo xam ne nga yore jikkoom ji nga yore jikkoom te nit ku ñuul ngay do te nit ku ñuul ngay dox seen coxor ga seen coxor seen caay-caay ga seen yàq ga seen luwaay yu bëri yi te benn baaxu ji te benn baaxu lépp ñu jox la ko lépp ñu jox la ko fu ñu jëm fu ñu jëm fan lañ jëm nag tey anam ci loolu lañ ne ci loolu lañ nekk réew mii réew mi mën na dem 100 pour cent. mën naa dem xam ngeen ne 100 pour cent. 100 pour cent mën na pour cent réew mi mën na koo dox. waxuma la man. mu ne waxul la waaye yéen ñii kuñ ci joxoon réew waaye yéen ñii kuñ ci joxoon réew mi nga defar ko. njub rek njub rek. lu ci ne nga teg ko fa mu war a tege lu teg ko fa mu war a ne rek. xàmmee li nga moom ak loo moom. xàmmee li nga moom ak li nga moomul. jeex na jeex na tàkk amul leneen amul leneen. amul leneen amul leneen. waaye nag waaye. réew. réew bu fekkee ne. bu fekkee ne. ci ab problème lay dund. peuple bi. ci ab peuple am lay dund. ci lay dund. ci lay dund. ci lay dund. ci lay dund. peuple bi kañ la ñuy mën dara. peuple bi kañ lañuy ñuy may dara nag. ku fi tabax rek jom jom mën a tax a tabax. ku fi tabax rek ci peuple bi. jom mën a tax a tabax waaye waaye warutoon na mën a am. waaye nag warutoon na mën a am seet leen rek. seet leen rek lan lan. ñun ñëpp. ñun ñëpp ku ci xëy ba jant bi so. ku ci xëy ba jant lan ngay laal. lan ngay laal te état jëlul wàllam. te état jëlul wàllam. du ndox. du ndox. du ceeb. du ceeb. du diw. du diw. du laaj. état moom amul pertement. kon na ñu ngi ñaan yàlla. kon nag sëriñ bi nag ñu ngi te maa ngi wax sama baat ci kaw ne. moom mu ngi wax nag baatam ci kaw. réew mi ñaar rek fi nekk. réew mi ñaar rek fi nekk. kilifa. kilifa ak jaboot. ak jaboot kilifa yi. kilifa yi jaboot yee leen jur de. jaboot yee leen jur de. kilifa yi. kilifa yi jaboot yee leen jur de. xam leen ne jaboot yi jaboot jaboot du xam doom du xam doom muy kilifa muy kilifa mu ñaan mu torox mu ñaan mu torox benn jaboot du ko def benn jaboot waaye yéen nag waaye yéen tam ngeen xam ne yéen tamit biñ leen toñee biñ leen toñee ba ngeen xéeg ba ngeen xéeg ñu bëgg seen teranga ñu bëgg seen waaye teral leen ñu dëgg dëgg nag teral leen leen ñu teral leen ñu nag ku bëgg nguur ku bëgg nguur dugal ci réew mi dugal ci réew mi. wan leen la nga man wan leen li nga man jëflante ak ñoom jëflante ak ñoom. rafet ñu rafet bu ñu reyloo suñuy doom. bu ñu reyloo suñuy doom. bu ñu reyloo suñuy doom bu ñu reyloo suñuy doom. bu ñu reyloo suñuy doom bu ñu reyloo suñuy doom. bu ñu reyloo suñuy doom ñu reyloo suñuy doom. bàyyi ñu suñuy doom. bàyyi nañu suñuy doom. te te. ni ko luwaa tëddalee ni ko luwaa tëddalee jarul xuloo jarul xeex jarul xeex. buñ ne woon fii la ñuy watee. buñ ne woon fii la ñuy watee. pantre bii pantre bii. ku bëgg a ku bëgg a wate. yaay tànn ka neex. yaay ku la neex. dugg ca biir dugg ci mbañ gàcce gi ak sa enveloppe ak sa enveloppe seet ka la neex nga dugalu ca ko ca kaste kaste ñëw dugal ñëw ci urne ña la neexut ña la neexut ña la neexut nga sàlleen ci kese nga sànni leen nag ca mbalit ma loolu jar na ko loolu jar na xeex loolu jar na xuloo wala jar na jaru ko jaru ko parce que la ñuy xàttee nga ñëw ndax la ñuy xàtteem nga ñëw waa lu tax na duñ yeewu nag waa lu tax ñun duñ yeewu diwa ko yor diwa ko yor diwa ko yor diwa ko yor jar na jamante paaka ndax jar na jamante paaka diwa ko yor diwa ko yor diwa ko yor diwa man diw mënut diw man jar na bañ kurfañ ndax jar na dóorante kurfañ lu tax duñ doon nit nag lu tax nag ñun duñ doon nit mukk man de ba muy Mouhamadul Mahi ba léegi sëriñ bi ne ba muy Mouhamadul Mahi ba léegi fekke Senghor fekke Senghor musuma koo jox loxo ba nim dee koo jox loxo ba nim génn àdduna Abdou Diouf Abdou Diouf musuma koo jox loxo ba ni mu wàcc Ablaye Wade musuma koo jox loxo ba ni mu wàcc Macky Sall mii musuma koo jox loxo ba bés yàlla tey bii kon nag kon nag gannaaw ñun duñ duñ duñ falu gannaaw ñun duñ falu ay taalibe lañu def ay taalibe lañu def ak i bay ak i baykat nañ ñu bayee ci liñ nañ ñu bayee luñ ne te liñ bëgg ñu dimbale te liñ bëgg nag nañu ci dimbale bu ñu kenn reyloo kenn kenn reyloo kenn bu ñu kenn reyloo kenn ñu kenn reyloo kenn ñun nag ñun nag konturuñ kenn. konturuñ kenn. ku fi ne daal. ku fi ne daal ñu ñaan la yàlla. ñu ñaan la yàlla ñun. ñun sëriñ. sëriñ jëru xuloo jëru xeex jëru xeex. sëriñ jeeg bu jar la. sëriñ jeeg bu jar la. xam ngeen jeeg bu jar. ndax xam ngeen jeeg bu jar. ku ku ñëw. ku ñëw. bëgg bëgg ko. bëgg ko. danga def la mu bëgg. da def la mu bëgg. da nga ko neexal. da nga ko neexal. da ko fenal. da ko fenal. ndax lan ndax lan yaa bëgg ca moom yaa bëgg ci moom sëriñ jeeg bu jar la sëriñ bu jar la nañ téye suñu faatiha yi suñu salaatu faatiha yi suñu xalaat suñu alxuraan ji julli waxtu yu juróom képp koo xam ne yàqaluñu suñu diine yàqaluñu dara ndax dépense duñ ko ñaan kenn. ndax dépense ñun duñ ko ñaan kenn. ku ñu yàqalu suñ diine. ku ñu yàqalu suñ diine. yàqalu ñu dem liggéey. yàqalu ñu dem liggéey. ñun suñu yoon newut ci yow. ñun suñu yoon newut ci yow. nguurul ba pincam yàlla. nguurul ba pincam yàlla. waaye daal. waaye daal suñ diine ji. suñ diine ji bayee ñu ko. bayee ñu ko suñ tool yële. suñ tool yi dimbale ñu ñu bay. dimbale ñu bay ko. nga xaar ñu it nag. nga xaar ñu tamit. ba ba ku ñu kenn bu mu ci lor. ba bu kenn lor ñu. lii may wax nag. lii muy wax nag jotaay moo ko laaj. jotaay bee ko laaj. ndax bu paasee tey jii. ndax bu paasee tey jii. balañ ko xamante déwén. balañ wax ci li ñu war a wax. ñu wax a wax. te wax ko ci teggiin. te wax ko ci teggiin wax ko ci yar. wax ko ci yar te wax ko ngir yàlla. wax ko te tooñuñ ci kenn. tooñuñ ci kenn ci tooñ tam. te duñ ci tooñ incha allah. bii nag. pays bii nag. kenn kuy yàq du fi nekk. kenn kuy yàq moom du fi nekk. kenn kuy daal du fi yàq du fi nekk. kenn du fi yàq. fen ngir dundee. fen ngir dundee kenn du ko fi def. kenn du ko fi def. yàq ngir dundee. yàq ngir dundee kenn du ko fi def kenn ko fi def. ku ko weddi. ku ko weddi ñëwal. ñëwal nga gëstu ci biir nga gëstu ci biir. ku ci am jikko jooju rek. ci am jikko jooju da nga fee ne. da nga fee waaye bokkoo ci waaye bokkoo ci rek. ñi fi bokk. waaye ñi fi bokk te ne fi. te ne fi te xam lim doon. te xam lim leen bayee. xam kenn du yàq. kenn du yàq kenn du tooñ. kenn du tooñ kenn du dimbali kuy tooñ. kenn du du fi am. du fi am. yal na yàlla barke suñuy doom yal na yàlla barke suñuy doom yaa rabbi daara ji yal na ko yàlla ji yal na ko yàlla dëgëral yaa rabbi ku ci la nga jonjoo xam nga ko ku xam nga ko yal na ci yàlla dimbale yal na ci yàlla la ci ndam te may la ci ndam baa ngi dox dërsu baa ngi dox école baa ngi dox école baa ngi dox hôpital baa ngi dox hôpital baa rajo baa ngi dox lépp a ngi dox lépp a ngi dox taalib yaa ngi def leen war buñ dajee buñ wax leen lañ xam te jomm nañ wax baat boo xam ne ku ci duñ ko defal kenn nag parce que yàlla moo ñu moom yàlla rek mooy suñu séede nu jaam mën a mel nag sabaate néewti nañ loxo waaye nag dañ la wax lañ xam waaye yàlla dimbale yàlla na yàlla xaar pay bi ay jaami yàlla lañ moom yàlla xam jàmm yal na yàlla defal jàmm yal na yàlla xaar suñ état yal na yàlla xaar suñ gouvernement yal na yàlla xaar ñaan gii may ñaan kat suqeku ci man soqeekuwut ci moom bàyyi yàgg naa ñaanal Senghor bàyyi yàgg naa ñaanal Senghor kon man tam kon moom itam ki ñu jiite danaa ko ñaanal ndax damaa fekk bàyyi di ñaanal ki fi newoon fekk bàyyi di ñaanal ñi ko wuutu ñi ko wuutu di ñaanal kañ tolloon di tamit kiñ tolloon muy président Macky Sall président dara wutuñ ko xamuñu waaye danañ ko ñaanal ndax boo amee jàmm ñu xam jàmm buñ ko xamut duñ ko xam lu yëngatu soldaar yi jóg soldaar yi jóg leen yi jóg leen yi jóg leen jóg ñun ñu toog suñu kër yi ñun ñu yi kon nag baat boobu ki ko yore feeg mi ngi ko yore dañ ko ñaanal moo xam jàmm ndax ñun tam ñu xam jàmm loolu dong laa ci xam tey man ci laa nekk yal na yàlla xaaral ñu suñ pay këy sëñ jiit këy sëñ jiit di Mouhamadul Mahi Mouhamadul Mahi yal nañu ko yàlla xaaral yal nañu ko yi bëri na bëri na ba mu xootee ba mu xootee benn lañ fogoon benn lañ fogoon ndeke fukki projet ak ñaar la fukki projet ak ñaar te moo ca njëkk def xalalam te moo ca njëkk a def xalalam teg nañ ko ci loxo yu ñu xóolu teg ko nag ci loxo yu ñu xóolu ak équipe bu ñu xóolu ak équipe bu ñu te ña ngay def lu ñu xam te ña ngay def lu ñu xam lu ñu xam te wane na ñu xam te wane na ñu xam. mii benn la ci. ci tayib mii Mouhamad Niass lu fay xew ci pays ba xam na. dafay xew ci pays ba. xam na ko ndax jaxasoo jaxasoo naa ak ñoom ndax dafa jaxasoo ñoom lool kon nag kon nag ku xam loo ca ñaanal mu xéwén lu fa ne rek ñun la fa ne rek ñun la fa ne yal nañu yàlla yàlla dimbale ci saayir ci baatin ak ci baatin topp mi nag topp mi nag biir réew mi ak bitti mi fu njabooto bàyyi ne yal na yàlla dimbale fu jullit ne te bëgg bàyyi yal na yàlla dimbale boo ko bëggul sax ci barkeem yal na yàlla dimbale amiin ñu ngi ñaanal nag. ñu ngi ñaanal nag suñ suñ commune. ñu ngi ñaanal suñ commune. ñu ngi suñ commune. di ñaanal suñ maire. di suñu maire. di ñaanal maire bi ko jiitu. di ñaanal maire ñoom ñëpp suñuy doom lañ. ñëpp suñuy doom lañ. kii. moo ñëw tey. moo ñëw tey yal na ko yàlla may ndam. na ko yàlla may ndam ci lim yoon. liñ gisaale. liñ gisaale. day dal na xel. dal na xel yal na ko yàlla jàppale. yal na ko yàlla suñ sous préfet. suñu préfet. ya sous préfet. ko yàlla dimbale. yal na ko yàlla dimbale. suñ commandant suñ commandant. Euh, gendarmerie. gendarmerie yal na ko yàlla dimbale yal na ko yàlla dimbale. suñu préfet. suñu ca Nioro. jëflante nag suñu yàlla mii. ak équipe bi ànd ak moom xam. lu doy. ak su préfet. jar na. ñu ñaanal leen ndax kat. ku la boole. ku la boole nga bokk nga bokk dimbale la. dimbale la loo ne mu ne ca. xamoo lu may ñaan. xamoo ñaan boo gore xoo. gore xoo. ñëpp la ñaanal. te loolu bu xamee. te loolu bu xamee dem na gouverneur dem na ba ci gouverneur dem ci ministre de ci ministre de ci président Macky ci président Macky Sall amul ñaan la ñuy ndax. ndax liñ bëggoon defal nañu ko te ñu ngi soxla leneen yàlla nañ ko man ba luñ soxlaate ñu defal ñu ko yal na yàlla def loolu yal na yàlla ndaw yal na yàlla jubal leen yal na yàlla barkeel leen yal na yàlla barkeel leen xam-xam yi yal na yàlla may leen wér bañ mën a joxe seen xam-xam bañ a wërsëg yi yal na yàlla dimbal seen wërsëg gën a yaatu bañ dimbalante jaame yàlla ñu ngi ñaanal nag sama doomi bopp yi doomi nga xam ne ñoo man ñoo bokk gàmmu gi de ñoo bokk pay bi di ñaanal sama rakki bopp yi sëñ Aliou ci jiitu ak rakam rakam doom yi ak seen i mag ak nu ñu magantee ak seen i rakk jarbaat yi ak ñëpp ak sët yi maa ngi ñaanal ñëpp taalib yi dëkkandoor yi ñu leen di ñaanal yàlla lépp lu fi xew nag sama baat ci kaw lu fi taxaw rek taalib yi la lu fi taxaw rek seen dërëm yi la dërëm yooyu moo barke ba indi jumaa ji moo barke ba indi leneen kon nag ñu leen di bàyyi xel campagne ñu leen lu ngeen fi def yàlla tax te ku def yàlla fay la sëriñ bu sëriñ bu buy exploite buy exploité sëriñ buy exploité sëriñ buy exploité aw nitam xaw ma fu mu ne xam nga fu mu ne waaye du ma ne xaw ma fu mu ne waaye du ci kër gi waaye du kër gi luñ fi oote rek. luñ fi oote loo ca def. loo ca def ñu la mu ngi nii soo ñëwee ñu wan la ko ne mu ngi te boo ko bëggee jëriñoo te boo ko bëggee jëriñoo kenn du la ko xaayee. kenn du ko xaayee. loolu dong lañ nekk loolu dong lañ nekkee ak taalibe am na kenn ci doom yi ndeysaan. am na kenn nag ci doom yi. mu ne ma sëriñ ak taalibe mu ne ko sëriñ ak taalibe mi ngi mel ni rox ak jëmm mu ngi mel ni roxu ak jëmm roxu mënta dund lu ma ci jëmm roxu moom mënta dund lu ma ci jëmm waaye roxu tam bu amut jëmm dund waaye roxu tamit bu amut xam ngeen ne jëmm du dund kon ku tane sa morom kon ku ci tane sa morom xam nga nu melam xam nga nu melam ñaar ñoo fekk ñuy wër miir bi ñaar ñoo fekk ñuy wër nag miir bi te fekkoo ba ñuy départ fekkoo seen départ boo ne boo ne diwa jiitu boo ne diwa jiitu ñeme yàlla la ñeme yàlla la waaye xam fekk fekkul waaye fekkul la nag noonu rek lañ mel kon nag kon nag yéen nañu yàlla dimbale yéen nañu yàlla maa ngi ñaanal ñëpp nag sëriñ bi ne mu ngi ñaanal ñëpp wax nag wax nag dafa nooy nooy léeg-léeg léeg-léeg nga tarxiis nga tarxiis waaye ngeen jégal ma ko waaye nag ngeen jégal ko góor gu baax dafa daan wax ne góor gu baax dafa daan wax ne góor gu baax góor gu baax daan wax ne dafa daan wax ne bu wax feebaree feebaree na dégg wér na dégg wér bu dégg wéree rek bu dégg wéree rek waroon naa waxee nangam waroon naa waxee nangam ah sa mat gi waaye nag sa mat ma ne sa mat gi sa gi yow bi ma juumee ba mu juumee ba la ma war a waxuma ko la ma war a wax waxuma ko nga nangul ma ko rek ci sa mat gi mottali ma mottali ko loolu rek amul leneen ndax kii wax ndax kii wax day wax rek day wax rek liñ ko jox ne ko wax ko ko jox ne ko wax ko wax dana ko wax mën na laa laal mën na laa keneen naa laal keneen te fekk loolu lañ ko sant ko sant ma koy jeexale daal la ma koy te yàgg naa ko nettali. te yàgg na koo ñettali. mooy dëjë mbott ba. mooy dëjë mbott ba dëjë mbott ba ci la bokk de ci la bokk de lépp ci la bokk lépp sëriñ bi ne ci la bokk mbott mbott ak ganaar ak ganaar ak janax ak janax dañoo bokk sañ ci dëkk dañoo bokk ñoom ñett nag dal di sañ ci dëkk yàlla de mbott dee yàlla def nag mbott moom dal di dee ñu ne lu ngeen xam ci mbott ñu ne lu ngeen xam ci mbott ñu ne benn sikki daal la ñu ne daal benn sikki la am mooy bu yàlla ji tawee daal mooy bu yàlla ji tawee daal dana firnaal nit ñi dana firnaal nit ñi ci wax ju bëri ci wax ju waaye du yàgg waaye du xatal kenn ci waluwaay. waaye nag du xatal kenn ci waluwaay. du bënn saako kenn. du bënn nag saako kenn. ganaar gestu janax ne ko lañ dem. ganaar gestu nag janax ne ko ñëwal ñu dem. ñii dajuñ. ñii dajuñ. dañuy gaarawaale. dañuy gaarawaale. waaye dëgg waaye nag xam ngeen dëgg la. kes. kes kenn du ko wax mbott. kenn du ko wax mbott. sama saako bi bënn nañ sama saako bi bënn nañ kenn du ko wax mbott. kenn du ko wax mbott. kon ñoom ñaar ku ne xam am nga loo moom. ñaar nag ku ne am nga loo ku ne xam nga loo moom. ku ne am nga loo moom. kes ganaara ko moom. kes ganaara ko moom. saako buñ bënn saako buñ bënn janax la ku xamee ji koy ganaar ku xamee ji koy ganaar yaa moom wax yaa moom wax ku xamee ji koy ganaar yaa ko moom yaa ko moom man waxuma kenn moom waxul kenn jërë ngeen jëf yal na yàlla dimbal leen yal na yàlla barkeel leen yal na yàlla def leen ngeen nekk nit ñi xam jom nit dafay xam jom nit dafay am jom nit dafay am coloré nit dafay bëgg boppam nit du nangu ñu toroxal ko nit dafay nangoo sonn fuñ la bëgg a toroxale gàddaayal wuti feneen gàddaayal xuuti feneen taxaw fa taxaw fa ba kala ñëw fekk si la nga faj xaajoom loolu rek koy faj na amul leneen jërë ngeen jëf yàlla nañ ko yàgg taxawee yàlla bi yàlla na ko yàlla sàmm lépp luñ fi sëmb yàlla na sotti yàlla bu kenn wéradi yàlla bu kenn gàtt fan yàlla bu kenn ñàkk lépp yàlla na ko yàlla ngeen jégal ma nag dañ maa wax sama bu jëw ma ne damaa waxoon nañ ma wax sama bu jëw ciy wax ñu ne sama jotaay fa yàgg ñu ne jotaayam dafa yàgg waaye beneen yoon nag waaye beneen yoon nag dana gàtt dana gàtt ba gën a gàtt ba gën a gàtt incha allah waaye baal leen ma waaye baal leen ma asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah